loolu ça ne fait l'objet d'aucun problème mais dafa am benn obscurantisme boo xam ne dañ leen ni nii la yàq ci ay bokk yàq ci lu bëree bëree bëree bëri fekk nit ñi ils n'ont la juste information man dama bëgg bu la nit nee lii hadis la nga ne ko ci sept mille la bokkam ci six cent mille yi ce que dafa tegu ci sept mille yi baaxul la baaxul luñ ko war a def waaw su fekkee ne hadis bind ko weddi yonent bi la ndax moo ko tere woon est-ce que loolu ñun mën nañ koo jël def ko jaamu yàlla suñ jaamu yàlla mooy lan mooy yonent bi def yonent bi tere woon ñii def ko ñun nag lii lii ñoo ñu def ñun dañuy wax ne ñoo ñoo baax ñoo ñoo màgg am na sax ñoo xam ne mooy seen mm-hmm. maam mm-hmm. Euh, c'est clair c'est clair professeur alors euh, dinañ ci ñëwaat euh, mu mu gën a yaatu ni ñu koy defee parce que waxtaan bi dafa am solo xam nga keroog Fatou. Mhm. dama waxoon ne ñaari sœur yu bokk ndey ak baay. Mhm. mën nañoo am benn jëkkër. waaw. mu su fekkee ne ñaari sœur yi bokk ndey ak baay ay sœur si siamoise inséparable. Mhm. nga xam ne benn chirurgien. mënta ñëw ba xotti leen bañ def ñaar. ñu bokk benn jëmm. waaw la neex te ñaari ji ñaari sœur yooyu bokk ndey ak baay benn jabar ak la ñuy compter maanaam gannaaw boo leen takkee mën ngaa am yeneen ñetti jabar ñoom ñaar buñ ci bokkee muy ñeent duñ nekk ñeent juróom. Hmm? parce que loolu juwoon na polémique dinañ dinañ ci ñëwaat. déedéet du polémique. waaw déedéet du polémique. Hmm. tey que wax am na atte koo xam day juddu amaale benn baaraam bu dend baaraam bii hmm. waaye benn baa borom juróom benn baaraam ak borom juróomi baaraam yëpp benn jëmm la am na ñoo xam ne ca boole am benn loxo deuxième loxo am ñoo xam ne ñoo am deuxième tànk troisième tànk loolu mooy baasu fiqh bi mooy ñaar ñooñu benn jëmm la hmm. bu am ñaari bopp am ñeenti tànk xëy na mu am ñaari biir xëy mu am ñaari bagage ci jigéen kooku nag moom moo mooy àtte boobu parce que ñaari ñooñu mënoo leen a may ñaari jëkkër parce que bu ñu amee ñaari jëkkër jëkkër yu ci ne dafay gis awraay jabari ki ci des te it jege ko jege boo xam ne sax mu ngi noonu te dafa am benn règle ci l'islam mooy fa mu ne turra xayra baaxin wala aadin fala isma aley képp koo xam ne force majeure moo la condamné la nga sës ca ngay dem mmh, mmh. dinañ ñëwaat ci loolu dinañ ñëwaat ci loolu euh, ñëwaat ci également ak Seydina ak li nga xam ne mooy euh, dañ ko doon wax tout le temps euh, le mariage temporaire léegi également bëgg nañ ci ñëwaat mais mais bien avant ñu yeggaat foofu Euh, dañuy waxaat actualité parce que actualité bi euh, Ndeye Dimet Ndaw bokk na ci tey euh, le capitaine Touré bi nga xamante ne gis nañu démb li nga xamante ne moom moo am ci page Facebook am la annoncé que ne contrat wam bi mu amoon ak IAM dañu ko dakkal après bëri na loo xamante ne dégg nañu ko ci la gendarmerie nationale mi ngi raxasu ba mu set ki nga xam ne moom la ñu dénk enseignement supérieur ñu ngi wax ne jokkoo na ak école bi nga xam ne moom mooy IAM loolu noonu yëpp tey nan la ñu ko mën a jàngatee capitaine Touré bu ñu bari jàppoon ne mérité na une seconde chance malheureusement mu jul am cette seconde chance boobu nga xamante ne moom mooy mu dem liggéeyi. Eh, boo du xoolee ci texte yi soxla jëm ci wàllu gendarmerie euh, dafa am loo xam ni mënuñu ko accepter muy euh, nga maanaam xët lu ñuy wax réserve parce que bu ñu fàttalikoo euh, li waral mbirum euh, radiation boobu mu ngi tukkee rek ci mbirum Ousmane Sonko Adji Sarr parce que moom capitaine Touré am na lu bari lu ñu koy reproché ñu wax ni noonu la doxalee ci ci ci ci dossier bi bokk na ci wone ab PV boo xamante ni nii waruñu ko woon génne wax nañu itam toujours bu ñu sukkandikoo ci lu ñu expliquer wax nañu ni euh, bi Adji Sarr demee foofu di jàkkaarloo ak enquêteurs yi wax nañu ni moom nee na Adji Sarr euh, Ousmane Sonko nit ku am doole la donc mënoo leen ci moom dara donc wax nañ itam ni euh, ci audition yi ci fan yooyu li mu doon jàkkaar li mu doon woo Ousmane Sonko téléphone bari na lool loolu yëpp ñu ëmb ko ba après autorité yi ñoom euh, ci loolu la ñu sukkandiku ba raje ko maintenant nag radiation boobu tey ay question yu bëri tamit lañ ci lañ lañ lañ ciy samp donte tey jii ni gendarmerie def na communiqué ñu taqewu ci laalewu ci mais tamit enseignement supérieur ñoom dañu jël le contre même euh, ci euh, li nga xam ni mooy gendarmerie parce que ñoom évoqué nañu question de profil wax nañu ni am nañu mën a jàngale li nga xam ne ni moom la capitaine Touré di jàngale léegi nag des na version wu ñi nga xam ni mooy waa IAM parce que xëy na ñoom bu ñu génnee wax euh, dinañ ci gën a am lu ñu leer parce que kaawu capitaine Touré li tax mu xaw a doy waar xam nga jàngale da ngay transmettre benn benn savoir mhm. xëy na ma jàpp ni li tax xëy na ñu ñu ne war ko mën a def que xëy na mën na exercer influence et cetera parce que arme tamit boo ci xasee ba dugg gendarme boo ci xasee ba dugg donc pour nga pour nga génn ci dañ lay surveiller même bu ñu la rajee parce que bu ñu jàppee ni yow war nga mën a poser ay actes yoo xamante ni dafay dafay nuire à l'institution man xëy na loolu yëpp moo tax euh, waa IAM remercier ko euh, xëy na tamit IAM dañu dañu dañu jot pression mais encore une fois Euh, ci droit de réserve boobu bëri na lu ñu koy soulever ci kaw Ousmane Sonko bu nekkee ci administration ak lu ni mel man dama jàpp ne ak euh, lu mu mënti dem rek nañu respecter suñu institution yi mm. parce que euh, te bu fekkente ni nit dafa jël yenn décision yi nu ci dem ba jeex parce que aujourd'hui am na ñoo xam ne dañu dañu dañu nekk di di di suivre li nga xam ne moom la génération bi di di di nekk di def donc encore une fois capitaine Touré euh, li ko dal kenn yéene ko ko c'est un jeune brillant euh, xëy na am na acte yu mu posé ay supérieur am jàpp ni acte yooyu noonu dafa jalgati ba tax ñu sanctionné ko am na une seconde chance maintenant nag bon peut-être que xëy na plus ñuy dem ci dossier bi. plus dinañ ci am lu ñu lu ñu. moom dañ ko dajaleel xaalis wala. waaw dajaleel nañ ko xaalis ñaata. mat na trente millions. Ah, am nga ci la wóor. waaw loolu laa gis ci information yi. déedéet loolu kay man gis naa ko. waaye boo see may laaj. ndax xam nga nag wax dëgg yàlla trente millions. Mhm. trente millions internet moom. gëmuloo ko yow déedéet déedéet man waxuma ne affaire gëma gëma di damay laajte rek ku ci am lu ko wóor. waaw xanaa moom bu dee jot nga ko nga laaj ko ndax mu mën na ko confirmer. waaw en fait euh, loolu mu ngi tudd mm. crowdfunding mooy. Euh, plateforme plateforme mhm. numérique buy permettre nit ñi mën a envoyer par exemple am na ku feebar à partir sa téléphone nga yónnee ko ci ci xaalis bi nga yore moo xam ci man opérateur nga mun koo nga mun ko loolu moom du loo may jàngal man li may laajte affaire bi moom confirmé na ko wala ndax confirmé wu ko alors euh, Serigne Saliou euh, euh, peut-être tey ñu ngi wax capitaine Touré ñu dàq ko fi nga xamante ne foofu doon liggéey mais kuy jàngale da ngay enseigner le le savoir. mais da nekk également exemple euh, capitaine Touré li tax euh, tey mu jógee fa nga xam ne mooy gendarmerie nationale euh, yàggul mi ngi fi l'affaire Adji Sarr Ousmane Sonko conséquences yi bokk na ci la radiation de de du capitaine Touré radiation boo xam ne gendarmerie def ne def ko dàq moom mu ne moom moom moo démissionné ak coow li ci amoon yépp tey l'enseignement supérieur wax mbirum profil wax probité bi nga xam ne waroon na ko am te amu ko. Euh, nag boo ko gisee ci koo xamante ne dafay jàngal ay ndaw yoo xamante ne mën nañu xool ci moom pour roy ci moom. wax ne li ma ba léegi moom mooy continuer ba tey capitaine Touré déjà moom rajo nañ ko de la gendarmerie ku ci nekk am nga ci sa opinion ñeen ñi jàpp nañ ne c'est illégal ñenn ñi jàpp nañ ne c'est légal parce que nee nañ obligation de réserve moo tax ñu daax ko mais tey rien n'empêche au capitaine Touré d'aller dispenser des enseignements amul benn loi bu ko tere benn loi tere woo ko d'ailleurs le ministère de l'enseignement supérieur ñoom raison bi ñu évoqué moo di ce n'est pas ce n'est pas un docteur donc lui il n'a pas vocation à aller donner des cours à l'IAM ce qui est absolument faux IAM du ay docteur ñoo fay nekk même à l'université il y a des doctorants Cheikh Omar Anne boobu nga xamante tey moom moo jiite enseignement supérieur bi muy joxe cours institut en 1989 qu'est-ce qu'il était donc il faut qu'on arrête quand même de de de de nous insulter mooy tey c'est ñoom capitaine Touré dañ ko ñu ko may dara parce que dossier bi moom laa la wax rek il y a des yoo xam ne dañ leen di ciblé te capitaine Touré ce n'est pas la seule victime dans ce dossier là on a vu un jeune militaire. moom dem nee nañ c'est quelqu'un qui a je ne sais pas ameuté la foule on l'a mis encore te luñ ci xamul mooy gis nga dossier bi am na ci ñeneen ñoo xam ne qui ont reçu des sanctions ba génn réew mi te nit ñi xamuñu ko. oui oui. comment ah si si ñoo xam ne sanction ne cest am nañ ci problème ba génn ci réew mi te nit ñi xamuñu ko ba léegi ci ci dossier bi la wax. dañu dañu amoon ndombal tànk wala. ah bien sûr. ci ci ci ci dossier bi ci enquête bi. non façon bu du ma ci sori. Mhm. mais au moins loolu man lu ma ci xam la. donc moo ma ne la doon wax léegi nga ne nan la tudd ci anglais. crowdfunding. Ah. fundraising levée de levée de fonds. non non fundraising. fundraising fundraising. fundraising. Hmm. c'est hmm. l'équivalent collecte de fonds fundraising mooy collecte de fonds. effectivement équivalent téléthon. non ah, pas équivalent. téléthon c'est autre pour euh, faire. fundraising to raise fundraising. something bon donc donc léegi ma ne donc bu fekkente ne tey le ministre de l' enseignement supérieur ñoom li ñu joxe parce que bu ñuy wax affaire probité loolu ils sont dans le domaine moral te je crois pas que ñoom ils sont habilités quand à le juger moralement ñoom li ñu mën a wax kay mooy amul certification academique boo xam ne mën na ko permettre tey mu joxe cours IAM alors que à l'IAM ça ce n'est pas la règle là-bas même dans les ISEP même à l'université c'est pas ça la règle Déjà, j'ai vu récemment à l'université UGB, on demandait même à quelqu'un qui dispose d'un master 2 pour aller donner des enseignements là-bas dans, dans, dans, dans mais un mais secteur Mais est-ce euh, de charge euh, du tout mais xam nga xamante ne moom mooy euh, jàngale mais Fatou Abdou waaye aussi xam nga au moins booy ñëw nga ne da fa bëgg a jàngale am na dossier yoo xam moom lañ leen laajoo tamit doo ñëw ñu jël ni comme ça xam nañ capitaine Touré ban niveau ñoom li ñu war a wax kay moo parce que déjà lu ñu wax dañ ne école vocation la mais du refuge. kon ñoom jàpp nañ ne ñoom affaire bi refuge la pour moom. ki moom IAM aussi ah. moom ci yeewi askan wi la bokk aussi. muy ah euh, moom laa wax cest li ci nekk dafa bëri et puis en en en plus. il y a eu aussi par rapport à ça. en tout ci armée bi moom mook gendarmerie ñoo bokk àtte mënuloo am euh, doctorat di am grade du capitaine bu ne dafa am grade bu muy may waaw. moom c'est un doctorant. waaw nga xam ne boo ñëwoon. Ah. tey tey tey tey. dugg tey tey tey ci armée nga am licence lu mu bon bon da nga daal di am liet gradu euh, liet na. Hmm. te benn nga ciy te nekk nekk capitaine. moo tax ma bëgg wax ne. Hmm. donc capitaine Touré. ñoom ils sont en de le combattre jusqu'à aujourd'hui mais les raisons qu'ils ont avancées cest c'est des raisons qui ne tiennent pas du tout la route. parce que bu fekkee ne on a soulevé un problème de certification académique loolu wax ne jàll parce que ministre bi ko koy wax moom ba muy jàngale institut c'était un doctorant il a fait sa thèse en donc loolu ça ne tient la route nañ wax ne kay ils sont dans logique de combattre mais peut-être euh, ci communiqué euh, enseignement supérieur ñu ngi wax mbirum profit. profil bi nga xamante